amnakouyek opération bi prévenir police lii foog mu dem wax ñu ko Aïcha Banel s'il te plaît Banel ngir yàlla c'est pas le moment dama la ko ñaan bu ko wax dara am nañ localisation nañ dem moo gën ñu toog fi di xaar dem fan mënoo leen dem fenn Linda a raison bu ñu toogee fii di xaar on aura moins de chance pour la sauver on parle d'une fille qui est en danger lan moo tax ba tey ma toog fii ak dëmm yi Linda Mati